bu chaque fois bu ma waxé ak un journaliste revenir encore sur le cas Yékini day mujj don niru leneen comprendre nga man nit la du rap, rab jinné nit simple la problème bobu gas naa ko suul ñu bëree euh, ya xamti nañ 2S am exclusivité bi ba dégg père Bécaye di reporter maanaam dañuy nekk ci biir dañuy nekk ci biir làmb bi même boo jàkkaarloog sa télé sax da ngay nekk ci biir làmb bi lan mooy sa secret yow. yàlla <laughs> yàlla xam nga pourquoi. mais nee nañ yàlla yàlla béy sa tool. waaw yàlla yàlla bay sa tool mais dama la bëgg xamal benn problème gis nga man man yu bari yu ñuy wax man après laa ko comprendre man damay wax nii rek damay damay damay fo parce que nit ñi nit ñi mënuñoo nekk seen i kër. Andak ak stress bo xamanteni ciet bi stress la diwlin bi stress la nga yor sa njaboot faju ak situation pays bi ni mu mel nga bëgg reporter ba pare yanat ko benen problème mom mi lay sétan ni di metti mais man dama lay mettre à l'aise di waxtaan ak yow nank di toñaté et eh, yow puusal ni et eh, xal man duma sa morom yoyu ça dérange pas parce que bu bëggé def reportage classique comme tubab bi man duma tubab man du ma ko def télévision la am na ouverture adduna am na ouverture ku nekk dangaa war a doxal sa façon et puis du ma ñëw di toppandoo alaaji Mansour Mbaye mënatul am alaaji Mansour Mbaye c'est dépassé astafurlah alaaji Mansour waaw raw na mu def na sa def na taam ah mais boo ma bëggee ñëw bëgg a ropp toppandoo alaaji Mansour mais nit ñi duñ ma gis mais nit ñi ils ont besoin d'autre chose quand ma def leneen ba ma ñëwee ma fo ak nit ñi e booy toogal e booy sama rek jógal sama micro e sama rek indi sa yooyu même mbër yi ma koy defal da leen di neex ah da gis mbër bu ñëw père lii laa doon rêvé toof fi ma ne sama rek man du ma sa morom. ak wane ma en direct. père jël ma direct waaw xam nga loolu guy gi moo ko créé. Euh, euh. guy gi laa teg ci plateau bi affaire baa ngi daw en direct. mu a jël ma direct man ne ko luy jël ma direct affaire bi direct ma ne mais direct bi mooy ñu wanee ko moom mu gis boppam. comprendre loolu après gis nga mbër yëpp koy def mbër boo ci waxal mu ne père du ma jël ma direct te pourtant lépp direct la ah yooyu laa bëgg man ami am ak et puis am complicité ak mbër yi mbër yi samay xarit la samay fils la ku ma ci toogal ba mbër ji wax na leen ko keroog ku ci toogal da nga yaakaar ni moo yaay mbërëm kenn du ci sama mbër sama mbër ba na bëre. <laughs> ñoom ñëpp ah, dinañ dégg nga kenn du ci sama mbër sama mbër bàyyi da bëre. ba léegi mbër yi nanu comprendre ni mbër yi sax comprendre nanu ma. léegi et puis ñu bëri comprendre li tax nag nit ñi toog seen kër bu ñu sañoon Bécaye mooy reporté làmb loolu nag yàlla la loolu mënuma ci dara kooku xam nga àdduna dafa doy waar. da ngay jóg léegi taxaw ci arrêt car bi su euh, Chérif Ousseyni Laye da koy wax taxaw ci arrêt car bi yor 100 francs pour war a dem Dakar nit romb laa 4-4. def ci xaj ci ginnaaw muy mu di la mbaw daal la mbaw ngay mer mais du xolal yàlla la yàlla moom mel noonu yàlla moo garaaw boo ko xamul nag lu ne nag la lay naqari mais boo ko comprendre moom xam kii mooy kan gëstu ko di nga xam ne àdduna bi lépp yàlla la sunu borom mooy sàkk sunu borom mooy defar dàq mu fee reporté de yàlla la ëpp ma xam-xam ci reporter yi de yàlla la am na ci reporter yoo xam ne xam-xam kese la ñu danoo naan làmb mais yàlla mooy def li muy def kenn mënu ci dara hmm? Macky Sall kenn xalaatul woon ni mooy doon président de la république ñu ñu ko ëpp expérience politique fuuf ëpp ko yoon wun jaar fuuf ñoo fi nekk waaye yàlla moo ne woon xoolal Macky doon président bu président nit day nangu Youssou Ndour jëkku fee woy waaye moom la ne woon yàlla ni day doon woykat ma def ko woykat def ko leader def ko roi jël ko def ko ministre yàlla la du keneen il faut ñuy delloo suñuy mbir ci God. comme Nico anglais di waxee God donc je vous rappelle que vous êtes toujours avec Dalis et Père Becaye on est chez lui en ce moment sur buzz.sn donc tey moom nous ñu un entretien ici buzz.sn nous ngi fii ci Grand Dakar biir këram di leen fàttali ni nag moom nit ku ëmb la moom problème ku woyof la un humble. la tamit dafa am le euh, li ñuy sens de l'humour maanaam day kaf di ree te dafa am solo aussi Sénégal bon ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk lépp daal seetaan nañ tamit benn benn signature damay dellu si en arrière un peu Lolo, amna na ku ma ne ko man seetaan naa la euh, émission ngonal c'est un la seetaan naa fa ak donc euh, bu ñu dugg si sax lolo. loolu seetaan nañ le ben signature Yékini ak euh, balle gay 2 loolu nga ñu ciy wax tuuti li fa jotoon am et tout lan nga ñu ciy wax tuuti xëy na am nañu comprendre lu woon waaye tey comprendre nañ waaye yow ndey mille bi lan nga ñu ciy wax tuuti. loolu ñu wax naa ko fu ne erreur la woon rek booy booy bu ñu ci naree toog chaque jour. non c'est dafa am ñu ma ko dafa am internet yu ma ko laaj tamit tamit il faut tamit ñu ñu ñu jàpp benn affaire Père Bécaye fu mu toll nii lii nii fi muy jàll fi muy jàll adduna bi yëpp si teg seen bët maanaam xëy na yenn télé yi. peut-être fii ou yem wala yenn bu dépassé suñu frontière du soirée. mais li c'est sur le net donc à bi nos si teg seen bët botte. am na ñoo peut-être ñu ngi ba Hong Kong wala ñu ngi ñu ngi ñu ngi voilà quoi ñu ngi ñu ngi dëkk bu sore boo xamante ay sénégalais lañ bëgg nañ ci am ben leeral mais jotuñu ko ci am mais li ça fait l'occasion ñom ñu jot si jot parce que li li koy sétane du du sénégalais bon boy xol 40 pour cent yi ñoo koy mais 60 pour cent ngi à l'étranger te ay sénégalais lañ ay doomu réew lañ. na naa tontu dañ koy sétane Afghanistan diko sétane Japon diko sétane Chine diko sétane Amérique diko sétane partout dans le monde du net bi dong mo dem partout télévision yëpp ngi ci bitim réew te télévision yep am site émission yëpp fay jaar boy xam nga laal bëgg a xamal sama diggante ak Yékini chaque fois que Yékini taxaw na ci kanamu journaliste yi gars yi duñ ko laaj xaw ma complexe la xaw ma ragal la xaw ma lan la mais quand il s'agit de parler avec Bekay Mbaye il veut revenir encore sur le problème Bekay Yékini Yékini bi may bi ma dajee ak moom ay erreur moo tax jaloo woon dal ci kaw ñaari xarit comprendre la ca amoon ñëpp gis nañ ko ñëpp dégg nañ ko erreur amoon na ci Yékini mu accusé ma a tort affaire bi passé na yàlla atte na wax ja fa laa koy yemale jeex na mais bu dee chaque fois bu ma waxee ak un journaliste revenir encore sur le cas Yékini day mujj doon niru leneen comprendre nga man nit laa du ma rab du ma jënnee nit simple la problème boobu gas naa ko suul naa ko